entreprise étrangère yi contrôlé wuñu sunu économie comme ni ma ko waxee woon léegi soo jëlee téeméeri entreprise yo yo jël yi nga xamné ay grande entreprise lan ñaar fukk ak juróom ben rek moy ñi nga xamné ay étranger ñoko ko contrôlé société yoyu ñu ngi générer lool ñuy naan valeur ajoutée parce que valeur ajoutée moy pratiquement PIB li nga ci yok du bari pour mu nekk PIB ñu ngi nekk 1368 milliards moy jundi milliards ak ñetti témèr ak ak 11 du PIB du Sénégal entreprise yoyu fay état du Sénégal fay salaire ak cotisation le tollu ci témèr milliards ak ñaar ak fay salaire salaire tax ay doomu Sénégal ay ak ay am fu am bonheur di fay di am lu nu lekk am lu nu fajoo am lu nu fayee école pour seeni ay doom loolu entreprise étrangère yooyu ñoo ko def. entreprise yooyu tam fay nañ gouvernement bi lu toll ci ay taxes direct lu toll ñaar téeméeri milliards ak fokk ak juróom-ñett su ma ci boolee ay taxes indirect ay tee man dama bëggoon vraiment à partir de tey débat boobu du débat la boo xam ne ay wax rek la yu teguwul ci ay chiffres ANSD agence bu ñëpp xam ne seen liggéey dafa xariñ loolu ay statistiques ANSD la donc je préfère que ne ñu wax ci ay chiffres bañ a rek wax nous slogan la rek commission moom nous lay wax nous ñëwee plénière ñu wax la débat télévisé moom luy wax euh, ci yi nous ñu wax ci vraiment je pense que quoi